box Bagal TV mbokku internet yi ñu ngi fii ci foire ADEO première édition ba léegi waaye maa toog ci box yoo xam ne box yu ma neex la ndax boo yi damaa yàgg ak ñoom macha allah muy waa mafia bi surtout Ameth Diallo euh, mën naa ne kii ma nii euh, lépp lu xam Wakaam dafay woo ne ma li lii xam ne Wakaam day topp sama Bagal TV yi amel maa leen waaw ngi lay fay ah. di nuyu waa sama Bagal TV yëpp ah. di kontaan di am contentement seen teewaay fii ci bergerie El Hadj Daouda Diallo. macha allah euh, tey ñu ngi fii ci première édition yàgg nga ci ADEO Euh, noo gisee euh, journée d'évaluation yi ak euh, ba tey ADEO ak lan lan nga ci mën a waaw mën naa ne ADEO yi ñu mujj a def yëpp fekkee naa ko comme fête. waaw parce que évaluation lañ tàmm def chaque année moom ñu daan def. ñu dem ba ma taxawal ne dañuy def foire. waaw parce que jot nañu def foire mu nekk première édition mu nekk foire bu neex macha allah. waaw mu nekk foire boo xamante ne comme foire yëpp la ndax am na concours am na lépp. yëpp ko defee waaw lépp fii wakaam lañ ko defee. terrain bi nii. terrain naari waaw fii lañ daan defee chaque année évaluation. waaw léegi dañuy def par deux ans la ñuy def foire bu ñu defee deux euh, un an foire at bi topp la ñuy def évaluation at bi si diggante bi waaw. Euh, tey euh, loo indi. waaw tey maa ngi indi li nga xamante ne moom laa liggéey ci ñett at yu mujj yi parce que boo xoolee xar yi ma démarré yëpp yi ñu ma joxoon ñoo meññ xar yi ma fi indi nii te lépp li ma indi si kër gi la juddoo. premier bi moy Adja National. Adja National waaw moy femelle bu mag bi. nek doomu mineur ma si remercier au passage Pape bakkar Diallo moo ma si mayon tëb waaw. mu juddu mom waaw mu juddu moo ma si. Ah, mo la mayon tëb ci yaayam. waaw Pape bakkar mo mayon tëb si yaayam. macha allah Pape Boubacar mooy seen président bo xamni ne macha allah mi ngi partager ah. mi ngi def lu rafet ci élevage euh, Wakaam. waaw wax dëgg yàlla moom macha allah président. mom euh, mi ngi ñaar portée. mom mi ngi toll ci 3 portées. mi ngi am 31 mois. kan ak kan ko tëb. 3 portées yu jalle voilà actuellement nii Rijal moo ko tëb nii. Rijal moo ko tëb waaw. Rijal mooy mal bi ñuy liggéeyee muy kër ga andi wuñ ko. waaw comme benn box laa jël maal bi dafa xaw a soxor tuuti bu ñëwee fi day agité day sonal xar yi moo tax andi ma ko quoi. Ah, waaw. ñu indi benn benn ay femelle rek. ak ak kan la àndal. waaw mi ngi ànd ak euh, beneen femelle bu ñuy wax euh, Fajeng nekk doom si Rijal. mooy ban mooy ban mooy tënk bu ñuul bi dënga bunyul moy mooy. bunyul bu tahu bi dama taawu Rijal la. moo tudd nan mi ngi toll si 8 mois Fajang. Fajang waaw. macha allah moom it euh, doomu kan la. doomu Rijal la mi ngi toll ci 8 mois yaayam nekk doomu Matrak. yaayam tamit maa ko juddulu. macha allah ak kan. maa ngi indiwaale benn femelle boo xamante ne bu weex tàll bi baat bu ñuul bi. non beneen bi Faa Aydara. Faa Aydara. toute blanche bi waaw. nekk doom si Remontada papa maa ko juddulu. Remontada nekk doom si Grand Laye yaayam di doomu Samori. moom yaayam doomu xilaas la xilaas doomu grand. Mm-hmm. waaw kii mooy Faye Aïdara. si mu ngi toll ci 13 ah, mois. waaw. day soog a tëbu nii. Ah. ma ne day soog a tëbu nii. soog a tëbu. yaa ko juddule. maa ko juddul waaw. dugg loon concours. papam sax maa ko juddul non jotul dugg nag. Ah. jotul dugg. vraiment tëb na koo tëb. Euh, taawu Rijal bu góor moo ko tëb. muy kër ga. muy waaw muy kër ga dama ko abale quoi mais muy. dama ko abale taawu Rijal bu góor moo ko tëb. mu nekk akan. Euh, beneen femelle bi ñuy wax Amina. Amina waaw. mooy mbaat bu ñuul mbaat bu bi waaw. espoir la mi ngi toll ci 18 doomu retour la yaayam doomu xel comme jaaga bu Cees la. retour waaw maa ngi siy remercié au moom a aloon papam yaayam doomu xel comme jaaga bu Cees la waaw. maamam doomu jooni mu nekk liggéey bu rafet léegi tey euh, maal bi liggéey moom mooy kan nga ne dama ne kër ga. maal bi mooy Rijal nekk doom si Gourdin Gourdin doomu galactique la yaayam doomu Zalatan. waaw yaayu Rijal doomu Emel ak Adja Rijal mi ngi toll ci 23 mois actuellement nii. exposition bi rafet na booy yow yaa ngi koy gëm ba léegi macha allah nga nekk booy bëgg càmm booy bu constant. keroog keroog dafa naa gis naa la transfert bi de maa ngi fa woon extraordinaire. su ma sañoon fekkee ko moo tax ma dem. waaw dama doon wax sama xel su ma sañoon fekkee moo tax def naa tout ba dem moom. waaw transfert bu am solo. macha mu nekk lu neex ma ànd ak yéen ngeen ñuy dund ko mu nekk journée boo xam ne journée inoubliable kontaan nañ maa lay ñaanal bit ñëw nga dund judo la loo xam ni ah danañ def bi jëlee ko waxaam yóbbu ko fu sori a ah, ak xaar bu bari. amiin waay amiin si mën na nekk yàlla. incha euh, da nga gëm quoi da nga gëm da nga bëgg. dëgg la kay ah. numéro bi 77 477 46 40 expresso bi 70 689 52 30. waaw bergerie mi ngi nekk Wakam cité assemblée terrain basket cité assemblée. Wakam cité assemblée. waaw jërëjëf. booy la wax maa ngi gis ni rek élevage bi neex ma rek loolu moo tax. la. Ah, ba nga càmm gi. waaw. temps yii laa commencé nag ma gis Mouhamed dugg si ma gis Mouhamed di si liggéey nag. lu rafet. après ma ne tax ma topp ko nag ma nekk si ginnaawam. billaahi waaw yaa ngi maa ngi jàng kay. voilà ba pare ñëw xool xale mhm. euh, sa sa beneen euh, activité parallèle quoi loolu dafa waaw boo nekkee ci kaye ba sonn mën a ñëw yaxaar yi dund leneen quoi. yàgg bëgg nag nag. waaw ah, yàlla baax dina baax.